le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1166 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Trois cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1 et Touba 2. 236 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4249 cas ont été déclarés positifs, dont 5 512 guéris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 ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mooy ñi nga xamante ne moom lañuy wax contact mooy maanaam ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi fajukaay yi ñoo leen di topp te leen di saytu am nañu ñeenti cas li ñuy wax cas importé mooy ñu ngi dugg si fii ci réew mi jàll ci aéroport bi ñuy wax aéroport international Blaise Diagne bu jas ñetti kaa ñoom lañuy wax ne ay cas communautaire lañ te tey jii ñu ngi leen di gis ci Dakar Plateau fii ci Dakar am na benn fee ca Touba am nañu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne feebar nañu bi ñu leen saytoo seen yaram anatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñett cas grave nag am nañ ko ci suñu bërëbu sawetaas yi mooy maanaam. service réanimation yi nekk ci biir l'hôpital yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci l'hôpital yi fi di fajee seen yaram mu ngi ànd ak tan ci bi mas mi Covid 19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu fàttaliku mooy ci mois de mars bi mu amee ñaari fan ñu ngi tollu si ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñi nga xamante ne ànd ak doomu jàngoro yi bi ñu leen seetee gis nañ ci yooyu ñaari junni ak juróom téeméer ak fukk ak ñaar ñoom wër nañu seen yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñeent fukk ak juróom ñaar génn nañ àdduna làkku nañu ci ñi nga xamante ne ñoo des si bërëbukaay yi yi yi bu baax laa wax te ñu leen di faj ñu ngi si juni ak juróom benn ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé ni mu koy waxee suba su ne mi ngi dolli di ñaax askan wi fii ñu tal tey ci mbas mi ñu gën a dooleel te di topp tegtal yi nga xamante ne ñu ngi leen koy jox li ñuy wax geste barrière